dañoo fas yéene delloowaat kàddu bi ak lu làmb ndax sa digganteeg moo gét. waaw sama digganteeg moo gét moom moom. fan yi di dégg naa sax ay wax ci entre xawma ma moo gét. Euh, day am lu muy préparé pour Wally Seck maa ngi dégg wax yooyu daal ci net beeg yooyu. ba ñu est-ce que laa laaxuñu laaxuñu sax guy gi. sa digganteek moom et mbir yooyu bu fekkente ne dégg nga ko yow loo ci mën a leeral lu ci am. waa man amul sax lu may rendre compte journaliste sama digganteeg moo géej. moo dama def benn émission barki démb fii laa ko defee place Balla Balla ñaa séeréer Mame Diarra VIP wala du noonu voilà. waaw. non boo déggee ma ne Balla Niang Seydou Mame Diallo VIP. waaw yow da ngaa monte kilim. man waaw aw ma kilim aw ma ventilo. naa la wutal kilim ay ventilo yëpp yëpp. man kay joxam ma ventilo mooy dem ma yóbbaale rek. yaa ngi dégg waaw loolu ay détails. yaa ngi ma joxaale yow kay loolu détail la de jox ma ventilo sama soxna saa ngi amagut ventilo. jeex na amul problème yaa ngi dégg jox ma benn ma dugal ko ci oto bi rek. yóbbaale jeex na amul problème yaa ngi sa jaaraguma mooy. Balla Niang Serigne Mame Diarra. Mame Diarra dafa mun a xéewal nga fa. jeex na déggoo ma xanaa ku dem ba takku moom sa raw nga man ma yow mos nga maa gis may def émission ci mbedd. déedéet c'est la première fois mos nga maa fekk laal daan man ma dem fen waaw waaw <laughs> ah, kon li li bool dafa yaatu quoi. waaw léegi affaire moo géej boobu ak coow loolu. non moo géej amul journaliste bu may rendre compte ci moom sama diggante moom. waaw dama def benn émission barki démb. Mhm. waxay xol wax li nekk ci man. gars yi di ma TikTok naan moo géej du ma def armo ngir xeex waale gi yooyu bi maanaam gars yi defe ni damaa féeri ci kaa kan waale moo géej. moo mënumaa toog démb ne baax na tey ma ni bon na defal na ma taraanga ma koy sant di ko gërëm bu doon benn cent franc maa lekk xaalisam moom lekkuma xaay euh, man maa lekk xaalisam moom lekkul sama xaalis nee naa leen ba ma yóbbee Vegas moom moo cherché pour xam ma. Hmm. moom moo ma leeral ko moo cherché pour xam ma te ba ma xamee tamit ma réccu ma ko wax yàlla ndax dama wax naan ma mbër boo ñëwee Vegas di nga bàyyi New York. Las Vegas Las Vegas di nga bàyyi New York ñu ci waxtaan ma dem Vegas li ma waxoon am ma ñëw ko moi moo New York dafa am dafa am ay kii euh, doo gis jant bi quoi mais Vegas da ngay gis jant bi air normal normal mais moo def ma bëggal boppam. jox ma cër nag dama la leer nag ma leeral tuuti. moo yóbbu ma Vegas jox ma kër jox ma oto bu ñuul boobu nga du chauffeur bu guddi bi. waaw kër yi dama ñëw tànn ma ñetti kër ne ma ban kër nga ciy jël. ay fan yu bëri sax moo may dawal ba yàgg ma ne ko naa dawal sama bopp boole ma xaa bees yi benn chauffeur mooy dawalal. ñuy togg benn ren de gu mu ne ma moom togg ma ne ko non man doo ma toggal sama boobu moo ne leen kii muy guy gi bàyyi na ko mu toggal boppam togg ma njëkk a togg moo ci lay lekk xaarim joxum ba ci lay lekk mi ngi may dégg ne ma guy yaa toggali ma ne ñu toog di waxtaan man moo dama koy daaneel day ñëw sama néeg toog ñu waxtaan wala sa sama sama appartement sa sa kër sax laa ma taraanga nag xam nga loolu kuy xa kuy xaxar nit ki doo ko wax mu yóbbu ma di soppin di soppin soppin waaw ñetti valise la ma jëndal lu ñuy jënd benn mën ma jëlal kaat man ne kii day gé film wala nan la ni jëlal kaat daal mën ma jël yi ngay toogee avion bi téléphone ñetti bët yi boo déggee di ñi ni nit ñi di wax ñetti bët moom moo ma ko njëkk a jëndal am naa lu ma ko jëndee nag mënu ma mënu ma mbër ñetti bët yi ma a ko ñetti bët yi mu laala ma ñetti bët yi muy onze quoi ak yeneen ak yeneen mhm. boobu contrat booluma ak moom mhm. bi ma demee bu doon cent franc laa fa lekk loolu loolu suur na ma parce que du contrat dama dégg ñu dama bëgg ñu dégg fi may xee bu baax ok su may ñëw sax Sénégal nit soxla moo ay artisans show ñëpp sama kër fees dell su ma wooyee moo jot ko moo waxtaan ak ñoom sama booy li laa leen jox ma géré waxtaan ak ñoom maire lii ma waxtaan ak ñoom parce que loolu sama sag la nga bokk ko jot jotoo ko jotee ko ci man li ma lay jox jaar ci man sama sag la te ña fa ñëw ñëpp ba ci waykat yi musiciens yëpp da nga ñëw toog dama baay ma fan na def vidéo dama nga naan jàppaleel diw jàppaleel diw jàppaleel diw mu ma tuuf ko nanga ma ne ko ah teew tuuf ko yaa ma gën a xam mu may ko xaalis bari man loo xam ne sax man paas na sama njort man ak ñoo xam ne ni tey dañuy soxla ordinateur mu jël benn un million benn deux million kenn ko ne ordinateur un million deux million téléphone yi day dugg ci ak yeneen yeneen yu ma xam tey ñooñu mënoon defal loolu tey ñoo lu tax ñàkk déggante gi wala ñoo xam seen biir ñoom mais man li ñuy li ñuy liyee dama koy junj rek moo bi ñuy wax noonu 116 moo yaay na ma nii dernière butéel bi loolu rek mooy junj moom xam na man xam naa après ñu tënk loolu ma waral ma génn li ma génn barki démb. mais néew ma li ma génne dama ni moo parce que comme li nga wax nii léegi ñu ne man damay dal ci kaw. Wally Seck Wally Seck man sama yoon daa nekk ci coow lamb bay nekk ci coow musique Mm. sax man yoo nekku coow lamb ba nekk coow lu musique waale mi ci yoonam moo mi ci yoonam moo créateur la waale centre la mais tey man su ma ci mënul dox tànk jàmm duma ci féete kenn te moo duma ma toog moom muy wax ci waali musuma toog moom wax ci waali barke Seexu Tijaan Seexu Tijaan rek laa gëm hmm. mas naa dégg nag benn bis muy wax ni da koy may xaalis boobu fayaat ko bu ñëwee ko États-Unis loolu moom dégg naa ko. ku dee ak sa bàmmeel. xaw ma nag ci diggante bi lu fi xewaat ma oto bi jour bi ñu njëkk xamante pour dem Vegas ñuy wax waxi waali pour defe naa waali dafee ñëwoon ko xaw ma gisu ko mu ni non bu ñëwee moom dina ko may xaalis boobu fayaat ko boobu la ñuy doog xamante ni ah maa ngi wax ki mandal njuufa ma ne ko booy bi bëri na xaalis de nii laa ko waxee mais dégguma nag mais li indi lii moo tax ma leeral lii yow daal diggante waale moo daal yow saw saw yoon nekku ci daal su ma la déggee noo su ma ci duggee boo ca mën ta wax jàmm daal da ngay te du ma waxaat te ci waxaat hmm. moo coolee bari mee ku baax la wallaahi ku baax la wallaahi nag laa lay ku baax la. waa ñun de xamuñu ko waaye. gis muy di ko def ku baax la. bëri na yéen sportif yéen ngeen ci dara. sawaay man maay mbër mu mag sël ñam fay yóbbu. man maa waroon njëkk a siisu wala man man maay mbër mu mag laa la sël man man man ña fa nekk ñëpp maa la ëpp tur ci ak maa la ëpp kase. mais wanewu ma ko ay mobile ñoom ñëpp ñoo doon bokk avion dem ku mobile su ma demee bu may xool mobile du ma xool. du du kii du kii du siggi quoi wa day wane sax du mbër gannaaw la may wax waxtaan ak man yeeg yeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te wareewu ma ko mënoon naa wane ne man maa leen ëpp kase wala naa mais dañoo nekk benn suñu biir mais léegi gis ñu ndaw ndawaan a xam ne mënul ñàkk nag moo tax may rikkali toog sama coin léegi loolu moo bëri demu ngeen bay fiirante moom laa la wax léegi dangay gis koo xam day wax ci moo loo xam ne guy gi ba ci sañ émission bi ñu defoon man ak kii sama grand liir Diane dañoo bëggoon jaxase après moom mi ngi doog a mooy bi ngeen bi boobu noonu bi mu toogee mi ngi doog a comprendre bi nuyoon waaw mi ngi doog a comprendre parce que dañoo defoon moo maa ngi koy nuyu sama waajur dañoo defoon moo man maa ko aaki moo te wallaahi xanaa benn machine bu ma ko waxoon benn machine man bu ma bëggoon machine buy def buy defar oto quoi machine buy defar oto defal ndànk waaw buy buy jag suñu oto ma ñëw ne ko moo mun a mën a jag suñu xool oto bi paani Babacar del del non damay laajte kay question yi da ko jàll mu gaaw tamit waaw acca waaw waaw waaw jag suñu oto waaw ma ne ko moo mun a machine bi di jag suñu laa bëgg nga jëndal ma ko day xoolatoo moo dema comme ni ñu defee noonu fekk ñu def feesu soo ba pare waaw ok ok ma ko eh bala ngaa lekk da nga jóg jënd machine bi pour nga xam sama ci ak moom moo ne ma guy gi moom day teg pression ma ne ko sa laa ko tegee pression bañ dem jënd machine bi à part laajal moo ba xam mos naa ko wax sama soxla wala ma ko lii ak lii ak lii ak lii lu dul jàppaleel diw jàppaleel diw jàppaleel diw jàppaleel diw mais ñëpp dañoo yaakaar noonu man dama féete ci moo di lekk ci moom féete ci moom di gor seen tànk ñoom féete ci moom di yàq tey man li tax man du ma am moom problème man du ma peintir mais li ma ñor dama koy wax moom ma xam ne nii laa mel mais tey ñu mu doon defal loolu hmm. ñooy tourné di peintir di tourné di ko di ko waat ci suuf di ko encaissé ma leen tuuf wala ñu koy waat suuf di wax di jaxase di yàq gëj ngeen déggante bi ñu bi bi ñu defee bi ma defee émission bi am na ñoo xam sax daawul déggante ñoom ma envoyé message dafa moo su ma digg moom tay la gën a neex bi ma wax ci contrat bi loolu laay waxat tey su may dem bu ma amul suma amee su amul jot mu war a def émission buntu Pikine ngir ma ko génn loolu laa waxoon dama koy waxaat su ma amul su ma amul jot nekk su may combat buntu Pikine ngir ma ko génn moo la koy may mi ngi ci li may may mooy man ci la ma nekk su may entraînement ak su ma combat benn ngoon 10 millions moo mun moo ko may su la ko mayee ñetti yoon bu la ko mayaatee dina nu mu demee côté boobu laay waxee nit ñi comprendre fi may waxee mais su ma amee jot nag moo woo ma damay def États-Unis na comme ni may defee naan ni café toog waxtaan ak moom ñëwaat. boo am naa jot. waaw beneen bi. Hmm. sama combat cité bii ñu doon wax. combat cité combat Sénégal revanche la. ni ñi xam ko ay combat bi États-Unis la ak fii ak yooyu yëpp ay détails la. Ah, mais ñu ngi ko doon wax ñu ngi doon wax tamit ay ay papas ak yooyu mais revanche la. moo tax du ma ci ah, avancé dañ ko bëgg a biñ ma ci wooyee laal leen waaw biñ en même temps wax leen ak nas. parce que ñoom ñiy tëgg combat xam naa comprendre ñu mais su ma booloon ak benn tubaab barak tontu lay doon bu doon tubaab baat ak tontu lay doon mais Siteu ak guy gi ramasse la euh, euh, Papa saw ak guy gi. combat bees la combat gladiateur la. Ah, gladiateur gladiateur combat boo xam ni kumpa lay doon. xam nga ma la côté boobu laay waxee ñu comprendre ma côté boobu. mais ñu ma leeral ne àdduna. Hmm. ne li ma waxee keroog. laay waxaatee tey laay waxaatee suba diggante moo ak Waly sekk su ma ci mënul def jàmm duma ci waxaat. te benn journaliste bu ñëwaat. waaw. ci yow yaay yow lay jël exemple. waaw journaliste bu toogaat fii di ma laaj ne ma guy gi waa waa ñi ngi lay dégg ñëpp lay seetaan. waaw guy gi waa la seek. bala moo dem naa ko defar ma defal ko ci plateau bi comme gars yi léegi loolu ñu xewal bul defaree ci plateau boo jëlee góor jël droite kenn du la ko laaj bul ma dóor non parce que xool yéen yi di leneen day mel ni man non non non guy gi ñoom ñaar ñoo xam ne waali ku baax la moo ku baax moom laa la wax ay ñoom ñaar yëpp ay defkatu social lañ wax dëgg yàlla ñun loolu lañ ah man boog loolu laa gis gis nga defkatu social waaw gis naa leen daal ñuy dimbali ay doomu ñaar moo am ñaar waaw moo ci fasan bi muy mayee. waaw nañ ko ci fekk moom bañ na bu tuddee lam boppam borom lamp yi na lamp yi tàkk. waaw faaw lamp yi tàkk. bu lamp yi tàkk voilà léegi nag nañ ko ci eh, fekk si. mais moo am na ñoo xam ne tey jii. am na ñu ko ëppale. mais dugg ñu ci hopital di jàppale nit. te moom lu bon bon di nga gis ku feebar wala ñi ñi ñi ñi ñi amoon ñi ñàkkoon seen kii ci kii yi. ci seen bakkeen yi ci ci ci affaire lu bu amoon fi ak Adji Sarr. waaw waaw mooy ci. manifestation mais moo mais moo def. mais bu dee 100 yi am na ku yebal di ji xule fu ne mu fa ne ko bàyyi fi li bàyyi fi li ak leneen ak leneen mais nañ ko ci encouragé benn beneen bi waa li muy def nañ ko ci encouragé moom moo xam moom it nu muy maye mais bu kii maye nii nga nii lay maye kii maye nii nga ñaar ñi nga dégg benn coobu ndaw Babacar far ci waali guy gi far ci moo ñu bëgg jël problème bi taal ko te ñaar def ko social la ñaar def ko social boo leen boolee def social bi ñuy def ñu keneen dara Sénégal loolu sant gën ñu. tàqali ko moo gën ñu tàqali ko. am na solo gis nga way bi ko fi moo géej borom ma lan lan. waaw woy na diggante bi yàggul diggante bi lii amaat fi. waaw doy na waar de yéeme na de. te booy seet ñi sës ci moo ak ñu sës ci waali ñooy corroborante pour yàq kii nekk ci moo lu garaaw laa lay wax mooy dem ci suuf lu fanaan ci moom fanaan ci waali te version bi ni mu koy waxee la kii nekk ci waali tamit naan ko noo booy bi nangam nangam mais ñooñu nañ bàyyi loolu ci man la mi ci la ma xam dajale moo ak waali ñu war a ñaan ñu waxtaan ñi mënul ñaan kenn ku ne sa bopp moo amul xolu kiñaan ay vidéo yii ñuy wax ay yëpp dañuy sóob moo du nit boobu wallahi du nit boobu ma leeral ci nu bari Sénégal yi man dama koo jege xam ko keroog wax naa nag quoi ñu yaakaar damaa dama koo mere merewu ma ko mais li nekkoon ci man laa génne keroog te noonu laa koy génnee. xamul tax man noonu laa mel. moom xam na man xam na ñi sës ci moom xam nañ am na benn gànnaar bu ñuy wax laay VIP moom xam na bu baax li may wax ak Sine Saliou waxtaan nañ ci kon xam nañu man amu lu ma jàppal moom moo jàppalu dara. moo benn bis fi nga xam ni gars yi baaxuñu dañoo toog ci benn salle man fekkuma fa de nga xam ni moo ko baax la am benn waaye bu ñëw mbër la sax indi benn euh, vidéo ak buñ ko montel drapeau sargal rëg rëg xawma affaire yooyu benn promoteur tuddee ko ko woon xam nga mu leen <laughs> yéen na leen fexe nu ngeen pare combat guy ngeen ama drapeau sargal rëg rëg affaire yooyu bu leen boole waay wax bu rafet xam nga foofu rek mu leen drapeau sargal rëg rëg moo xam ne ñun ñaan ñëpp war ñoo jàppale mu féete ak Reug rek mais da leen ni carrément nañ fexe nu ngeen xam nga pare sama combat bi. ok ngeen naan drapeau Reug affaire yooyu daal di ree. Hmm. nit nettali ma ko ne ma loo mën a jàppaat moo jàpp ko. Hmm. yooyu yëpp ak geste yu muy def la. jëmale ko ci yow. man xam naa ci lu bëri ci moom. jël benn salle dajale Sénégal yi kenn ku ñëw lu lu luy soog mu jox la ko. lamp yi nekkoon salle bi rek 9 la. salle bi mu jëlee ko 60 millions. lu garaaw nag laa lay wax salle boo xam ne salle bi Sénégal yi fa dem ñu duñ ma bàyyi ma fenn fi ñu dafa fenoon show bi ñoom jóge ci am duñ ma bàyyi ma fenn man ba ma demee salle bi damaa waaru salle bi amul Sénégal Europe sax dañ ko fay compter ngir bëggal Sénégalais yi moo chaque jour boo gisee ma gën koo jàpp di gën a mer moom des yi muy def buy def yenn saa yi daam yi muy def yoo xam dafay metti te boo ko waxee du dégg bi maanaam def social dëgg la mais léegi social yi dëgg-dëgg del médiatiser rek maanaam di ko wane. del médiatiser moo fi xew. waa mais def lu baax est-ce que jar. non moo fi xew. Hmm. man gis naa ñu muy defal ñu baax ñu bëri duñ médiatiser te mi ngi def lu baax. te am daam nu mu koy defee après moo indi coow. lu garaaw nag du jëlu ko yaatal. beneen bi. Hmm. beneen bi mooy euh, lu muy def. Hmm. fi ma ko gënee fànn tuuti. moo gisoo lu muy def mu boole ci américain. est-ce que gis nga ko. waaw ay Sénégal la musoo gis mu boole ci américain. kon bëgg na dëkkam. même su ma ko waxalee euh, tey lu bon munu ko xaw ma ko ci moom mais des fois nag maa moom dañuy laala laala bu tàng bu tàng parce que man noonu lay dundee laala bu tàng yow sa xarit sa xarit bi nga xam ne sa xarit la yeneen a nekkoon ci di caméra. waaw mosuñu fee laala benn maa yow ba ba ma jot ma téléphone. sa sa seex. <laughs> sama seex na bu ngeen laalee tamit moom. xam naa waaw léegi léegi waaw waaw léegi. kooka moom da nga yow da ngaa xalaat rek wax voilà léegi loolaa lay wax léegi léegi moom kooka moom nit nit gënu koo jub. mais léegi anamu tey ah man jubuma. da ngaa dëng. mais anamu tey ndax boo jubu kon doo nekk toll fi nga toll waaye damaa xam ne dafa ma doon leeral foofu. waaw barki démb bi jël maa moom dañoo amuñu problème boobu. déet da ngeen a laa mel nag. parce que moom moom xam naa jikko. waaw man nag waaw kon xamoo sama jikko man jubu ma. non waxuma la juboo de. kay jubu ma. ne yow kenn gënu laa jub. jubu ma yaa ngi dégg yaa ngi dégg sama parce naturel rek. nit moom da ngay naturel. boo amee loo metti am nga droit wax ko na xamoo moo tey. ñi ñu jàppanteel ñëpp. dañuy bëgg wax dara moo. duñ ko wax di peinture nag après di peinture moo. te boo ko peinturee day feeñ. ba pare yow nga bëgg a tourné moom moo moo aj la il est intelligent. damay damaa toog ak moom toog a teeg moom mais billaahi wallahi taala ku yeewu moo la gën a yeewu. Wally Seck xam nga ko. Wally Seck maa ngi koy jox loxo benn yoon la mas a joxante loxo ñu ngi joxante boobu sama benn ganaar bu ñuy wax benn kilisiral bu ko jaayoon mu lu ci amoon ñu dem fa rek fa yem man ak moom ak sama ñaari booy ñu dem fa benn yoon laa mas a joxante am loxo. beneen bi boobu seen boori kër la beneen bi papaam lañ tuddoon sama drapeau. drapeau Papa Thione yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana suuf sedd ci kawam hmm. ma jël drapeau bi maa nees ñu dem bi ñu wooyee man sekk man nees sekk guy gi sekk hmm. boobu te boobu nuyantewuñu ci la ma Papa Ndiaye ci mi tey xawma hmm. amet ah, ci xaw xawma doon ma wax tournel pour feccee xaw ne affaire yooyu rek ma tël loxo bi noonu daa tourné ma ne waaye fecc yi naa ko fecc jour boobu noonu beneen bi demoon naa fi xawma vogue xawma vogue vogue vogue sama benn grand vogue vogue defe naa la ñuy wax boobu mbay si mii ngi wax sama grand la mbay si Ndiaye mbay si Ndiaye suma grand la mhm. Cheikh Mor suma xarit la sëñ mhm. Mor ma ànd ak sama benn grand bu ñuy wax Tafa Napoli Tafa Napoli dafa bëgg fecc man ak man dama dugg boîte ndeysaan jour boobu dama dugal Tafa di génn dégg naa Wally bi mu ñëwee doon na ma laaj di ma way sax pour ma yéeg ma méttilu loolu tamit damay bañ mu jàpp damaa ñëw demaat comprendre nga mhm. loolu laa am ci Wally kon xam naa bu may faral ci moo faral waaw bu far dee am na leer ci moo lay faral. mais kon kay jeex na kon su ma waxee loolu ci waali. quand waali nag bu ñu defe ni man damaa jéng ñëw ci waali pour contre mo jamais de la vie man du ma nit boobu. doo nit boobu man nu problème bi ñoom ñaar nekkee benn. waay waay waay waay woo way um, bi mu way kii barki démb moo géej. moo géej kuy xalam di ci jaay. way boobu lu ko dàq yaay buur ah xaritu moo nekk ci géew bi di mayee may ko fa xaalis bëri. diggante bi matul un an problème am mais y a il faut réfléchir pour la problème fa il faut réfléchir pour la problème qui sort. bien sûr fan la problème bi jugee. il faut réfléchir beaucoup sax. il faut réfléchir pour la problème qui sort. bien sûr mais mooy lu bari. mais il faut réfléchir pour la problème qui sort il faut réfléchir pour problème bi sort fa la génnee loolu tubaab bi wax. ok il faut ñu xalaat ni problème fa la lu bu yàggul dara dara dara waaw lu matul at. lu matul at woy bi neex ñëpp ba moo géej ko fecc. Hmm. ba mu naan ku dàq fecc bi am nga un waay waay waay waay waaye jàmm neex na. jàmm neex na man su ma ci mënul def lu Babacar Babacar buñ ma tëgale ci benn camp. élection yi koy faral. élection yàlla mooy maire yi. yi waaw waaw man moom wax dëgg yàlla savalagation man benn maire ci waaye musuma lekk sa dërëm. ku dul war a saa maire fi nekk yëpp na leer tel lay waxee. benn maire ci Guédiawaye musuma lekk sa dërëm xamuñu ne maa ngi bëri xamuñu ne bëri ma. menn war a saar laa doon lekk xaalisam boobu xamaguma ko boobu mi ngi maire Gunaas. à part loolu ku taxaw ne mos ngaa jàppale guy gi ci kombaam nga génn def vidéo man Racine Talla bii mooy sama maire. directeur RTS ra Racine Talla benn lañ mës a gisee père Hamadi Sarr papay Dere moo doon def benn xaw ma lan mu ñëw fa ñu nuyonte benn yoon lañ mës a nuyonte mais suñu télé ba nit du la mën a seet si moo daawur xaw ma nan ki nekk maire yëmbal bi xaw ma nan. daawur Ndiaye xaw ñoom ñaar mais kenn liggéeyu ci. Racine Talla liggéeyu. déggoo li ma wax suñu tëli bi. Hmm. pour nga jaar fa. man dama ñëw ci meeram bi am na benn grand bu ñuy mii Mimi. ak euh, Mimi ak euh, Pape samay xarit lañ. mais laajal Pape Seye ndax sama combat mos naa ñëw mënu ma Racine moo la jox billet bi. mais liggéey lu ñu ko dafa rek laajal moo Racine moo la jox billet bi te man damaa am six ci maire bi. da nga fa ci maire bi loolu force la. yaa numéro tout numéro sportif subvention bi génn. mais la moo la fa may subvention. dafa Eh, yow yow eh, man ma xam samay droit dama am subvention sama dëkk cere ma dañ may jox sama subvention chaque jour ma am ñu ma ko joxaat mais maire bi dafa liggéeyul benn sunu mbedd yi man mbedd yi sax moo tax may wax tëli bi bu tawee day taa nit du la fa seet si sama koñ fa ma dëkk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuñu ko expliquer man nag sama wax du neex xanaa nag boo dëkkee ak samp yoo xam ne yaa ngi moom yéen a dend maire kër gi ak sa kër a denn sooy bëri ji police bi waa ngi nii wax naan nim saat chaque jour commissaire bi commandé ak adjudant Diallo aram ñoom seeni ñoom commandant ñoom kii bi ñu fi nekk euh, kii ñoom ñoom kii Goudia bi ñu fi nekk ñoom ñëpp dañuy def délégation ñëw euh, cortège ma romb maire bi te maire bi la ñuy romb mais maire bi du jël benn billet na guy gi day bëri tey wala mu jël benn car na guy gi day bëri tey xëy nag sama position xam naa moo tax ki ma féetal muy ku dëgg ki muy Adja Wara Sarr ki nga xam ne moom di transmissé mukk ci lim nekk lay nekk boobu ba tey gëm Abdoulaye Wade gëm partem gëm dëkkam nag gëm goxam lam doon def gunaas ba tey moom lay def fu mu dëkk yi li mu fa def ba tey moom lay def mën naa waat ni salaire salaire am léegi ko député hmm. kooku mooy maire kooku laa gis sama bopp ci maire am te boobu ba may defal boobu xawma maire xawma sax ay maire boobu maag nas minituuñu nas boobu mi ngi ànd ak saaka yoor mais yow kee rek tax nga ne maanaam kii non kër du ñëw nga sama kër. waaw. boo ñëw sa yaram bi booy dem nu muy def. waa dugg naa fa de cib saret. non non doo non. saret ba de baaje na ma baaje yu métti. booy chaque jour ñun dañuy def mars. ma leen bu ñu bëree ba pare. woo presse bi. mu leer tey ñi ngi may dégg dama bàyyi ba fen dara mi may dégg papaam Hamadi Sarr mi ngi may dégg. kon yow boo sañoon war a waaj wàcc ci mairie ba. néew ma na wàcc wala mu toog. mais dama ni la. askan wi gis seen bopp ci maire Racine Talla nii maa ko wax tey. xam naa nag démentir dina bari wala mu woo ma ne ma nangam nangam man na ma woo ndax ndax mos naa laa gis na ma woo na mos ngaa bëri eh, ma jàpp ci combat bi wala mu woo ma ne ma yow tey mos nañoo nangam nangam ci mbir te man oh, ñoo dend ñoo dend buri bi yëpp da koy sonal moom sox du fi ñëw xamul li fi am. mais ah, ñoo dend dëkk mu dëkk fi nga ne du fi ñëw du fi ñëw musuma ko nekkee maire ci dëkk te doo fa dem. man du ma wax lu ma xamul. Pape Seye daal sama xarit la mi ngi fi ak grand nii nii mais musuñu maa bëre ñu nemmeeku ma man ku ma nemmeeku duma ma la nemmeeku te man filaa nekk fi laa dëkk. foofu nga yeewoo fi laa yeewoo ñoo dend. benn mbedd dox suñu diggante ak bi. dund bu seer bi ci dëkk bi. métti lépp métti métti. looy wax autorité yi. métti rawatina président. non xama man munu ma wax ci président xamul tax. waaw chaque jour nga gis ñu ma ëpp maqaam ëpp baat di waxtu du leen jërul faju man xamul lu ma ñaax ni ñi rek laa mën ñaax. diw gi de seer na. barki démb laa woote Thiénaba pour jëndaleen diw la ñu ne ma diw amu fi. ndax lu seer sax da nga koy gis waaye gisuñu ko amu fi. suukar ñu ne ma léegi benn kilo deux kii deux cent cinquante lay jar euh, liibar bi. liibar waaw yokkaat nañ ko deux cent yoo xam léegi yokkaat nañ ci jur deux cent ñooñu ndax amuñu ko. di jaayee lu leen neex. saakoob ceeb bëgg a dem ñeenti junni. mais léegi Babacar imaginal tey. ku doon xëy ku doon xëy di lijjanti dépasse boo xam ne balaa midi mu taal. nga yokkal ko ci loolu lépp lu gën gaa gàtt di ko ci yokkal 2000 francs fan la koy jëlee njaboot toog ñëpp nga war a taal foo koy jëlee mhm. dafa metti Babacar man léegi-léegi sama néeg day tëju du ma génn mënumaa génn gis nit ñi ci mbedim du am lu ma leen jox te mënuma la xool ay loxo yi neen léegi-léegi damay jooy ba du ma dangoor dese rangoñ parce que cas yu critique laay gis yoo xam ne sax day paase dund oh. dafa metti mais askan wi état bi na dimbali askan wi dimbali ndaw ñi milliards yi jël di ko denc ñu tas ko ci dëkk bi milliards yi jël di ko rawale ñu tas ko ci dëkk bi milliards yi jël di ci def yeneen naka su noonu ñu tas ko ci dëkk bi xaalis na circulé lu ne lañ mën a waxal nguuru Ablaye Wade ba mu des xaalis bu cir xaalis bu circulé wul Ablaye Wade. Hmm. lu ne lañ ko mën a waxal ba mu des xaalis bu circulé wul. nit sax dañu wax naan day luxus xaalis bi da doon bi fii falaam mais xaalis bii benn côté la demee. déet waay benn côté de wóorul. te benn côté la demee ah ñun ñëpp ay sénégalais la. wallaahi benn côté la deme tey jii boo nekkoon sax tey ci ci kii euh, ci ci parti PDS. Hmm. nga bokk ci kee bokk ci Macky Sall. soo demee ci banque bi boo defee dix millions bala nga cee jot bul xam kañ la. Ah. soo ñëwee ci Macky Sall tey war a dem ci banque bi ci ci ci booy def rek di jot. la déet banque bi moom banque bi moom loolu xam banque bi la problème banque est-ce que xam na parti nag guy gi ah, banque la yoonam ci parti banque di liggéey rek Macky Sall bu bëggee tey benn bu nee banque bi existé de état dafa am doole waaw ah, loolu moom dëgg la Macky Sall dafa am pouvoir waaw mooy président de la république dafa am moom moom laa la wax dafa am pouvoir Macky Sall li ko yàlla may bu ko nekkul wàlliwu lay nekk pour mu leer li ko yàlla may ni jox président bi nii yàlla hmm. bind na ko yàgg na su ko nekkoon wàlliwu lay nekk ñun ñi liñ nekkuloon bu ñu ko nekkoon wàlliwu la ñuy nekk yàlla du jël même protocole nit loolu doomu aadama nga boote ci boote ci yow. kon daal ñu gëstu askan wi. gettu askan wi li la yàlla jox nga xool ni nga koy xeexee ba mu des ay politique ak yooyu nga tas ko ci askan wi te xam ni yàggatul léegi léegi nga wàcc te soo wàccee war nga mën a nekk nekkin bu rafet Sénégal.